Je m'appelle Elas Ndiaye, enseignant euh, demeurant à Pékin Nord. Oui, c'est une grande journée qui nous réunit aujourd'hui, organisée par euh, Ousseinou Ndiaye, communément appelé WOZ. Cette journée est d'une importance capitale parce que qui dit ouverture des classes dit frais de scolarité. nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de secousses et où les familles sont très diminuées. C'est pourquoi Ousseinou Ndiaye a fait appel à cette journée pour, donner aux couches les plus vulnérables nous avons fait appel à toute la communauté de Pékin Nord, les des enfants d'ici et d'ailleurs, parce que qui dit banlieue dit précarité, dit, dit, social. Nous Ndiaye a œuvré dans le social et a fait appel à toute la communauté de Pique Nord pour que les enfants puissent venir ici, puissent avoir leur fourniture pour bien démarrer l'année scolaire. ça tourne autour de 700 ou de 1000 kits ou, 2004 On en a beaucoup, donné. Et on a donné après parce qu'il y a des donneurs aussi qui, nous, après vont venir avec leur... Oui, qui dit Ndiaye dit social, dit politique. Parce que Ndiaye est un habitant de le Nord. Il a son mot à dire. Lorsque la campagne électorale ouvrira, il donnera sa position, Inch'Allah. L'impact c'est un impact positif. Parce que qui dit social, euh, dit Ndiaye est très, très proche des populations. Et eh, comme on le dit, eh, eh, le jour des élections, Inch'Allah, Ousseinou Ndiaye euh, fera feu, Inch'Allah, avec le candidat qu'il soutiendra, Inch'Allah. Les, perspectives de ce mouvement sont nombreuses, euh, dans le social, dans l'assainissement, dans l'éclairage public, dans la sécurité. C'est nombreux, vraiment. Il y a beaucoup de défis que, nous, allons prendre en sade pour vraiment le bien-être des populations de que nous. Merci beaucoup. waaye commune bi dégguma ci lu dul Weuz sax Weuz la la ma ñëpp di xamee moom lañ mooy woowee waaw. solos ndaje bi dara warulu ko lu dul gis ni ndaw ñi ak dëkk bi metti métti bi dal si kaw population bi gis ni tamit li ma gën a déranger li tax ma gën a volonté wu jàpp naa ni bu nu euh, cadré wul ndaw ñi jàppalewul leen ci wàllu njàng mi jàpp naa ni lu bari dina sooxe ci réew mi ñu gis ni. Euh, charretier yi ma ciy gis ay xale yu ndaw yoo xam ni boo xoolee seen at matul dara gis leen ñu nekk ci charretier yi di foor for ay ferraille yi di gaz di dugg ci yenn détails yoo xam ni maam loolu bokkul ci luy doxal réew te njàng moo yokku maanaam réew suux na loolu moo war a tax ñu si ay ay junni maanaam ay téeméeri ndaw wala lu ko teg ñu bëgg leen jox ku nekk ñu def seet fu nu ñu suñu doole yem ñu ñu jox leen ko bëgg nag leneen loo xam ni tamit bëgg na ci gën a sóobu ba lii dina gën a yemb ba at yi di ñëw sax wàllu inscription yi sax bu bu ñu deful lépp tamit dinañ def moitié bi. defe naa ñi ci ëpp xaw ma leen ñi ci ëpp xaw ma leen ndax parce que bu doon yaama neex la da nga leen di xam yaama neex da nga koy xam waaye lii yaama neex nekku ci. li ñu njëkk a ciblé def leen ci liste yi mooy ñi nga xam ni jàpp nañ ni seen i parents yi seen loxo jotewul seen gannaaw te loolu. dafa bari ci gox bi bari ci rew mi motax ñu ni nan non nyunu. fexe ñu nu defaree ba mu baax ba dimbali ñooñu loolu mo gëna yok tax ñu taxawal ndaje man japp na ni dal euh, fu mu tolni man bagage yi bari na bari go xamni avant sax ndaje mi ci lu mat tuma ma xayma Jokna joxna ci lu mat 100 euh, personnes avant ndaje mi. kon ndaje mi ni rek lima ma xayma ci ci jok ndaje mi rek jox euh, dinañ jox lu mat 600 personnes wala téeméer loolu mom gat gàtt da koy mat. te ba tey nii bagage yi jeexul sama loxo kon bagage yi dara soxalu ma man man population bi rek ma soxla na na saafara saafara maanaam ni ñu saafara jafe-jafe population bi ak ndaw ñi ak coono bi ñuy dund ndax ñun yemuñu yemuñu ci euh, joxe fourniture kese maan ci wàllu inondation ci wàllu bépp jafe-jafe boo xam ni mu ngi dal ci kaw askan wi rek ñu ngi ciy taxaw ñu ngi ciy fexe ba mu jóge fi waaw. li ma gën a naqari sama sama dund fu mu toll nii bokk na ci politique bi ma nekk nekk ci ba pare ba am ci lu naqar ndax bari na politiciens yoo xam ne duñ wax dëgg dañuy nax population bi te ba pare dañuy gis nit ñi sonn ba pare duñ leen defal dara lii nii defe naa am na ñu mu waroon am na borom barke yoo xam ne at borom doole yoo xam ne ñi ngi fii ci biir commune bi ñi ngi fii ci biir département bi ñi ngi fii ci biir Sénégal te defuñu lii lii nii dama man li may daaw doon ko def mu nekk benn affaire bu ndaw ñu defaat ko mu mel nii man li ma bëgg mooy bay bailleurs yi borom doole yi ku nekk war nga bu ouverture jotetee nga génn un million nga teg ko maanaam ñu ñu ñu jéem a secteur bu nekk ñu def fa lu mel nii. bu ko defee gis nga maanaam ubbite école yu yu léegi at yu démb yi dafay wuute yu démb yi méttiwul amul inscription maam fourniture yi méttiwul waaye léegi loolu laal mu mel ni safara kenn mënu ko wax am na loo xam ne sax boo ci sori du ci wax sax day dem ba day nu sax maam sa xol day fees sa rangoñ sax mën nu tuuru ndax jafe-jafe yi population bi di dund loolu daal moo gën a sabab ndaje mi ndaje mi rek li ci nekk lépp mënuñu ko wax ndax nit ñi am na ñun jox ñu dem am na ñoo xam ñu ngi toog di xaar kon tey jii li ñu mën a wax rek dañuy tënk kàddu yi te ba pare di féliciter di sant maire commune bi tamit ñu ndax parce que lu tax seetaanuñu tey jii mënoon na dégg solo solo euh, maanaam solo bi mu am mu ne jàpp ni politique la wala leneen muy la maire ndax non du ma ni maire commune Pikine Nord rek mam maire pi commune Pikine Ouest même maire euh, at maire commune Pikine noor maire Pikine Ouest man ku ko naw laa muy Cheikh Diop dama ko naw ndax li tax ma naw ko mooy euh, maanaam liggéey da koy jaaral ci ci yoon danoo ñëw wax ak moom ma xam ne kii liggéeykat la man ku man su ma fa gisoon leneen damay génn wax ak nit ñi ne leen gis naa fa leneen kon tey dañuy sant la maire de la commune Pikine Nord day dañuy sant la maire de la commune Pikine Ouest waaw di sant rek ah, sunu ñoo xam ne suñuy ay nitu bopp lan muy Mor Gueye Lo di ko sant bu baax a baax a baax di ko ñaanal taxawaayam yàlla na gën a yokk tamit nit ñi bàyyi ko xel di sant la Pape Diop Pape Diop mu nekk koo xam ne mënoon na tamit nekk koo xam ne tamit dañuy seetaan ki nga xam ne rek dama koy beral euh, sant di ko di ko ñaanal yàlla tamit lii mu xam ni ci ndaw ñi rek la jëm muy euh, damay point laa ci def si moom muy Mamadou laay tudd duma ma tudd santam Mamadou maa ngi sant loo xam ne ñii ma àndal dama leen di ñaanal yàlla ngeen santal ma leen Mamadou ñaanal ma ko yàlla yàlla gën a ko dëgëral taxawaayam yàlla gën may ko loo xam ne dana ko jox population bi ndax dama gis chaque jour su ma ko woowul sax mu woo ma na ma waxal lan nga soxla ci terrain bi ko ku koy wax te man terrain bi rek moo ma ñor loolu daal laa am loo xam ne doon naa doon naa ko ubbi di ko tëj di ko wax muy euh, commune bi yàlla na nekk commune bu gën ci commune yi commune Pikine Nord raw Pikine tamit yàlla na nekk département yi gën ti département yi en tout cas daal lii bii mooy deuxième fois bëgg na déwén mu nekk lu gën a yaatu defuñu ko rek pour élection yi ñu jëm defuñu ko pour élection yu ñu jëm dañ ko def pour loo xam ne ndimbal pour njaboot yi maanaam euh, benn booy bañ a dem ci agression yi métti yi di am at euh, yenn euh, quinze man yi di am wala dem di jël feeraay di ko jaay loolu moo tax ñu kii en tout cas en tout cas ñun daal ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp kàddu yu gudd na waaye rek li nekk ci xol li nekk ci dënn yi rek la doon maa ngi tudd El Hadj Moustapha Mbaye ndar laa ya dëkk mais dama am kër fii ci koñ bi Euh, je suis communicateur traditionnel de classe exceptionnelle. C'est que vous m'avez pris au dépourvu. dama donne dem di un plombier alors je me dis un rassemblement un regroupement ma ne lu ne ma la cité ndax c'est ça la politique ma bàyyi ni c'est pas may def sol yorum bu bu géwal naa faf rek naa faf rek jël le train en marche dañu wax ni nag euh, euh, dara dal ci nit lépp ñëpp yéene ko ko yàlla lay doon jàmm moom mi bu yàpp yëpp meloon na res du ci am yoon ak ñi mu àndal nag parce que lu kenn mën fukk ko tax alors tiens Ousseynou dañu bëgg à travers euh, le seen médias là nit ñu bëri di xool ci li ngay def di copier ci li ngay def ndax jaamu yàlla bu rëy ngi jamono ji metti na borom kër yi sonn nanu lott nanu loof nanu wax nga dëgg de xale yu bëri léegi seen njàng dafay yàqu boo laajee seen papa wala seen yaay ñu ne amatuñu doole ba taluñu ka wutum ceeb bala caa ñu bàyyi leen ñu nekk alors tu as la proie dans la rue ci mbedd mi lu ne ngi ci a ah, prédateur yaa ngi fi évêque eh dégg maam bi ak ñoo xam ne mën nañ déndoorte xale yi ñu dugg ci yeneen bon nag xel mi nga xam ni sa maam dafa waxoon ni xel mi ma boole ak Momar Soura à l'époque gërëm naa ko sant naa ko waaye moom mii itam xel mi ko may fa tabaarakallaa mu taxawal lu mel nii woote lu mel nii moom Ousseynou Diarra sant ak ñi mu àndal nag ba nag daal Ndiaye alors bu dul woon dara sax damay way waaye alors xool xam na yàlla yàlla xam na xool lii daal yàlla na sax ku ko dégg yàlla na def na yow bu ñëpp defee na yow ébéka eh dégg maam benn cité bi cité bi macha allah tubaarakallaah dana nekk dana clean yàlla yàlla dolli jàmm ci yéen ñii itam seen kii bi ngeen taxawal muy lan ngalam muy ngalam ebeke dégg maam be ngalam moom see euh, or moom ngalama ca dàq boo bon yàlla yàlla yàlla na jëm kanam yàlla na leen dégg alors loolu laa doon wax euh, ngeen baal ma nag bu fekkee gudd met